va bien allo. naka affaire yi. sant yàlla ça va. foo may woowee. Eh? Dakar la nekk. man maa ngi Yoff côté pharmacie centre aérien Bessiaw. yaa ngi Yoff. waaw boo ñëwee ba pharmacie centre aérien Bessiaw da nga mel ni comme kuy dem parcelle. d' accord miin naa boobu léegi nu muy demee. waaw miir cimetière mu commencé nga jël sa main droite nga woo ma. Ah, léegi nu muy am na passant bu cinq mille am na passant bu dix mille. dégguma ma am na parfum bu cinq mille am na parfum bu dix mille léegi bu din bi nu muy demee dix bi mooy tapante macc ween ak macc koy ak position bu la neex bu cinq mille bi mooy macc koy kat ok mais boobu amul position bu la neex quoi non bu cinq mille bi moo am macc koy ak kat dix bi moo am katante macc ween ak macc koy ak position bu la neex dix bi tout court day am lépp day am lépp quoi. d' accord mais yow mais yow à sa âge fan nga toll quoi bañ nga nekk mag. man quoi. man vingt six ans la ab j'ai fait un mètre un mètre soixante onze. teint clair. teint clair. Euh, waaw di yaa ngi. mais mais mais j' espère que poitrine bi yëpp euh, ça va. waaw. waaw léegi d' accord léegi su ma ñëwee foofu kon dinaa la dinaa la woo. am problème maa ngi lay ñëw. d' accord di nga libre instant ou bien. am benn fekk fi tuuti mooy euh, am na benn audio bi nga xamante ne comme wax yu ñaaw ñoo fa nekk mhm. comme wax yu ñaaw moo fa nekk dafa am benn femme xale la sax laay wax parce que vingt six ans mhm. xaw ma looy daw bay raam booy daw bay daanu mhm. vingt six yow ngay woo ngay woo góor woo la enregistré la yow mhm. nga mu nekk sa client ngay waxaaleeg moom mhm. ba dem booy jaay sa bopp dem ba di ko jaay cinq mille francs ak dix mille six ci ko am si ah sa oh. vocal bi dafa ñaaw moo tax mënuma koo teg te ñu bëri déglu nañ dëgg la dëgg la dëgg la naan ko naan ko bu dee lii ak lii cinq mille francs la bu dee completement dix mille francs si sa si sa fa la ñuy jëm mhm. xanaa gisoo xale yi jigéen ñiy toog ñu leen di may ay million ay millions yu dul jeex am jéeg nga xamante ne dañoo sëy ba tas dëgg la da leen di may ay millions mm-hmm. millions millions yu dul jeex. te dañoo mm-hmm. sëy nag ba tas nag. ah kay. Mm-hmm. dëgg la dëgg la am na gis nañ ko fi. dëgg la mooy mooy mooy li ñuy wax rek gis nga jigéen yi wax nga ko léegi mën nga am cent doom un million de doom mais boo nekkee foo toogee fi nga war a toog doo ma da jar maanaam doo lamb daal. jigéen dafa am valeur. mais am na ci ñoo xamante ne. maanaam ñoom ñoo tax jigéen di perte valeur am audio boobu man dégluwuma ko franchement mais valoriser jigéen. dafa détaillé dafa dafa ci ci ko ci yaramu jigéen bi yépp ah. ci yaram jigéen bi ci boppam moo détaillé yaramam. ne ko lii ak lay junni la lay ak ñaari junni. Hmm. ci jigéen. Hmm. waaw mooy mooy loolu moo tax gis nga am na ci góor yoo xam ne ñoom nee nañu. du ñu takk sax jabar ñoom sëy nañu man am naa sama benn grand moom am na benn doom mës na divorce sëy divorce na nee na ma ab sa du ma takk di ko bokk ak yeneen góor yi du ma ko def moom mu ngi foo ci xale yu jigéen ñi ak ñi ko nangu. waaw mais nee moom du takk jabar parce que nee na xale yi jigéen ñi bu wuñ sëy te da nga boo leen takkee da leen di bokk yeneen góor ci ñiñ koy wax. wa loolu laa doon wax sama frère bi léegi ne ko am na yeneen jigéen yi nga xamante ne ñooñu moom je suis d'accord avec toi parce que ñooñu ñoo ñoo mhm. tas seen sëy ñooñu ñoo toroxal jigéen ñoo yàq ji ñoo yàq góor mhm. am na ñi nga xamante ne ay jigéen lañu dañoo yàq góor ba góor bëggatul dara ci mbëggeel mhm. voilà dëgg la dëgg la ñooñu ñooñu dañu yàq dañu valoriser dañu dévaloriser jigéen dañu dévaloriser jigéen jigéen amatul benn benn valeur ndax ñooñu borom audio boobu. dëgg la waaw doy na waar à doo xam fooy tàmbalee dooy xam koy daanelee ndax jigéen ñi am na ci ñoo xam ne boo déggee seen histoire rek yow da ngay da ngay tax sa gémmiñ nopp dalooti na ngay wax. tellement que c'est pervers tellement dafa yomb tellement que dañu yombal seen bopp ah lan moo gën a lan moo gën a am solo ci àdduna jigéen amul. ndax ñooy ñooy ñooy ñooy pro ñooy créer daal. Mhm. ñooy jur ñooy biir ñooy wasin donc bu ñu demee ba toll ci stade bi c'est désolant. non de c'est euh, désolant euh, vraiment. Ferlo Galsen c'est pas question que Ferlo Galsen il faut ñuy dénoncer il faut que ñuy wax. man man waruma waxu live boobu dëgg la mais il faut que ñuy dénoncer jigéen laa Ferlo Galsen. Mhm. dama di jigéen te dama am njaboot. Mhm. am na yi nga xamante ne dañu di ko wax. parce que mhm. tey jii audio boobu tey Ferlo Galsen bi nga nee lii nii ngay wax bu ma ko wax tey jii am na xale yi nga xamante ne nañu déglu audio bi foog ne looloo nekk looloo xew looloo loolooy dox ci àdduna mhm. ñun nii nag war nañu mhm. toog ñu démentir que nit ki mën nga bañ a jaay sa bopp te mën nga réussir dans la vie. dëgg la. voilà dëgg la parce que ay xale yu ndaw. 26 ans comme yu ndaw yi ñoo koy déglu. c'est que c'est mhm. ñun suñu société ak niñ ñu yaree dañ ñu yar ni ñu ne ñu jigéen mhm. taar taaram mooy sëy def ko def ko suñu bopp yi ne la jigéen mënul dem sans góor alors que adduna bi day dox jigéen boobu nga xam ne mënul woon dem sans góor du jigéenu vingt et unième bii daal mhm. donte kilifa moom dafa baax mën nga mën nga mën nga yor sa bopp góor am sa jëkkër di sëy yor sa bopp bu la sa jëkkër defalee nga defal sa bopp bu la deful nga defal sa bopp. Mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. mais dañu dëkkal suñu nopp yi ne jigéen mën na mën na mën na day toog war a sëy mm-hmm. euh, nekk nekk nekk une maire de famille d'accord mais buñ ñu buñ ñu dëkk tamit gëmloo ne ñu ne munu leen dem temps wóor léegi bu ko defee loolu mooy indi genre perversion yi ne man comme te yàlla may na ma taar mën naa. am lu ma neex ci góor ñi ci lan jaay sa bopp ak anam boo ko mën a defee nag mhm. anam boo ko mën a defee parce que jaay sa bopp du dem rek jaay sa bopp dem séq ak góor am na beneen façon jaay sa bopp booy def te doo séq ak dara góor mhm. bëri na bëri na donc na jigéen ñi li nga wax nañu gën a xam suñu bopp gën a valori gën a revaloriser suñu bopp parce que nag attention jigéen a ngi perte valeur am nag. ah ngi perte suñu valeur. te lool li ci ëpp faute bi si ñun la man dama koy faral di wax si ñun la mooy yaa ngi koy wax léegi góor yi nga xam ne dañuy nekk bitim réew mm-hmm. di di gëmloo ay jigéen yu nekk Sénégal di leen gëmloo lu amul xam nga sànq yaa ngi koy wax côté boobu moom jigéen ñi ñoo ñàkk jox moom waaw dëgg la